أستودع الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله بك استجرت إلى الرحمن خالقنا وشافعنا غدا يا كعبة الله والوالدين مع الأحباب والقرباء وكل راجي دعائي كعبة الله أستودع الله ربي كعبة الله وكل ما حولها يا كعبة الله بك استجرت إلى الرحمن خالقنا وشافعنا غدا يا كعبة الله والوالدين مع الأحباب والقرباء وكل راجي دعاء كعبة الله mau keluar mau keluar Allah Yeah. mbokk yi fii mooy Salam fii ngay jaar ngir dugg ci rawdu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ñoo ngi nii di dugg ci biir rawdu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi ñaanal jullit yépp mboolem jullit yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu leen lii ump yàlla bu leen lii yàlla ngeen ñëw ziar si sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund mbégte mi nga xam ne mooy mbégte mi gën a rëy ci àddina bu doomu aadama di dund te moo di ñëw ziar si sayyiduna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sangu àdduna ak bu alaaxira ñu ngi ñaanal mbokk jullit yépp yàlla na borom bi subhaanahu wa taala andi leen fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ma denc place la ci place u aljana yi moom laa leen wan noonu moom la ñu bind foofu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ni sama diggante xabru bii ñu ma denc ak tabaarakallaahu minbar bii ma doon taxaw di xutba place la ci place u aljana yi kon xaaliyan fii ñuy waxe ak yéen ñu ngi nii ci biir aljanna place ci place u aljanna yi sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam asalaamu aleyka ya rasulallah seyd alxaaji malik si radiallahu anhu bu ñu fi accès dafa ne alhamdulilahi rabil alamina ala ziyarati xabla fawti safwatallahi maa ngi sant yàlla man moolaay sax seyd alxaaji malik ñu ne ko loo sante yàlla mu ne xéewal gi ma yàlla defal Thank you. wala muy faatu ma ñëw sallallahu alayhi wa sallam waajaa ngi nii waajaa ngi sangu àdduna ak alaxira ngi sangu àdduna ak alaxira ngi nii ñu ngi ñaanal soppe yi ñaanal xarit yi di jàmm yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi nii yàlla buñ fi gëj laa kaana axira ahdin baynana abadan yaa sayyidan xayra xalqillahi واجعل زيارتنا ربي مكررة مقبولة كيفما نبقي ونرضى واجعل زيارتنا ربي مكررة مقبولة كيفما نبقي ونرضى الحمد لله رب العالمين على زيارتي قبل فوتي صلى الله بقي مجنون زيارنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقين جسنكو جسنكو تبارك الله جسنكو زيارنا يلا بقين ما شاء الله بوفي بقين دو دوير da ngay dugg génn duggaat génn duggaat génn duggaat génn duggaat génn ndax mbégte mi ngi fi yëg tabaarakallaahu amul benn place boo koy yëg ci àddina na nañu ko yàlla fayal yaa rab turandoo bi mu agsee fii dafa ne fi tey ba taw bay nal xabri ulfu xullati wa min bari xayri muslim atlu daabiya fii la gisee woon na muhammad salallahu alayhi wa sallam fii la jàkkaarloo yoon ak moom yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ngi nii mbokk yi yàlla bu leen ump ñu ngi ñaanal sunu baay alxaaji gay ñaanal sunu na soxna fat si ñaanal sëñ babacar si muhammadul